asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Mouride Info sëñ Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu sa délégation bi nga àndal di leen jaajëfal ci seen taxawaay bi ñu am ci Touba di am contentement bu baax nag ci ki ma laaj ci moom dinaa sawar ci wax ci moom ndax ku ma xam la ci sawar ci wax honor ci honorable député Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ndax yaakaar naa bokk naa ci ñi ko jege depuis bi mu ñëwee Touba di sàkku si baatu askan wi pour doon député fii ci Touba yaakaar naa 2017 ba tey ay activité politique maa moom ñoo koy ànd muy ku rafetal nag di ku baax laaj nga ma ci ku ma sawar ci ku bëri yërmande ndax man bëri na lu ñuy dox ci Touba man bokk naa ci ñi ko koy doxal yaakaar naa du ñu dugg weer mukk te wàññiwuma lu mat quinze délégation boo xam ne dinañ dinañ ko dox ci biir Touba di fa yóbbu ay social di dem di in yóbbu ay ay ndox ci ay barab di yóbbu ay ceeb di yóbbu ay ndimbal enveloppe am du jug mukk ci di ñu yónnee ñuy dem di ko yóbbu ci ay nit loolu moom lu ma seede la di nit ku bari yërmande di nit ku am fulla nag soo gisee sànq yaa ngi may tooñ naan ma honorable jege nga ko waaw jege naa ko ndax moom dafa dafa bëgg nit ku am fulla dafa bëgg nit ku am fulla muy nit ku am personnalité musuma gis ci moom daray wayadi wala daray ñàkk fayda moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di nit ku social di nit ku bëgg ay mbokkam te fonk leen. waaw bi ñu Pape Diop boolee li ma jàpp ci moom mooy nit ku fonk doomu aadama la nit ku bëri yërmande la nit ku bëri yërmande la. dafa doon nit koo xam ne ñaari sax du buy ànd ak yow nii bu gisee nga xaw a changé sax day jàpp ne da koo mere nit ku laa biir la bi ñu dalee di ànd ba tey wax dëgg yàlla soo gisee suñu diggante amul benn ñagas-ñagas toujours daf may déglu dafa bëgg dëgg day déglu nit koo xam ne njort na ne yow dëgg rek ngay wax moom day déglu sa kàddu di nit ku bari yërmande di nit ku am fulla ak fayda nag loolu moo tax suñu ànd yomb li ma leen ci tënkal rek mooy li ñu fi li li mu jël ci ay travaux ndox ñu ànd mu yóbbu ko ci dëkk yi nga xam ne ay ginnaaw ndindeeg ay côté mm, mbusoo beeg côté yoo xam ne mënuma la ko limal ak li ma gis man mu yónni ma ko man ci ay don yoo xam ne ay ceeb ay suukar ay tonni di ko yóbbu ci daara yeeg yooyu man mënuma la koo limal personnellement waa sama gis-gis mooy li mu të li mu waxante woon ak population bi def na ko ndax keroog bi ñu leen éliré li mu njëkk a wax mooy bi mu xëyee daf na ma daf daf nañu man de yéen a ngi yéen a ngi ci mbégte mais man damaa tiit ñu ne ko yow lan moo tax nga tiit da ngay sant yàlla yaa ngi doon dem élection di tiit ñu gañe la ndax ku rafet ku ragal defet la nag ñemewul defet kon kay tey soo demee ba gañee dangaa war a sant yàlla mu ne déedéet li ma tiital mooy nan laay def ba li askan bi yaakaar ci man ma représenté leen ko ensemble ma am ci réussite wax boobu di wax bu ma marqué ndax man doon naa nit koo xam ne bëgguma di ànd ak nit ku ñàkk fayda même man bëgguma di ñu ànd ak responsable bu amul dignité ci boppam ndax image yi dafay des te doon naa nit koo xamante ni bi nii du ma waxal nit loo xam ne nekkul ci moom loolu nekkul ci man duma ma nit tamit ndax sama intérêt personnel mais nag am naa droit li ma gis ci nit ki toujours ma di ko seede moom nag dafa doon nit koo xamante ni bi nii toujours day défendre ay idéem li mu gëm daf koy wax mais gisuma kenn kum amal xaar ma yàlla du nit ku soo ko gisee nit danga koy teg nit ku violent mais melul noonu nit ku lewet la ci biiram gisuma ko mu am ak benn responsable politique problème mais nag saa yu waree défendre dara day taxaw défendre ko ba mu mat yaa ngi ma doon laaj sànq ci taxawaayam ci assemblée su ma juumul mais yaakaar naa ni mboolem ku nekk Touba taxawaayu Cheikh Abdou Mbacké assemblée yokku na yokku na yokku na xar mi karaw ba ku déggul woon assemblée ne doomi Touba yaa ngi fay teew moom bi mu ñëwee xam nañ ne Touba am nañ député yaakaar naa kenn umpaleetul ne Touba amul député assemblée nationale ndax taxawaayam dinañ koy complot dinañ koy saboté dinañ koy def lu ne mais moom personnel dafa taxaw comme chef religieux boo xam ne dem na représenté ak ay taalibeem représenté askanam yëkkati drapeau Touba. dem ne moom du du matal mandaam bi mukk te dulul ne dafa am victoire boo xam ne xeexal na ko waa Touba ba waa Touba gis seen bopp ensemble ay mbokkam sax toujours soo leen dégloo dañ koy mere ci taxawaay bi mu am ensemble mu ne moom bëgg na lépp loo xamante ni bi nii daf koy daf koy lekk mu doon lu ko lew ginnaaw population bi dañ koo tànn doyloo ko ba yebal ko ensemble moom luñ ko fa def tamit moom dina ko assumé ndax moom moo opté dem ensemble taxawal fa population bi muy lu ma rafetlu di bi ñu gën a déglu déglu askan wi xam ne foofu ñu nekk yor fa majorité opposition bii ñëw di leen indil njàmbatu askan wi ñoom lay ànd ñoom lañ àndal ndax su fekkee ne Touba gi dafa am lu ñu manqué honorable Cheikh Abdou Mbacké ñëw taxaw di ko defendre su ko ministre bi wala président de la république déggee ba ñëw defal ko population Touba ñoom su ëllëgee duñ ne Cheikh Abdou Mbacké moo ñu defal lii dañuy xam ne président wala ay ministre am ñi liggéeyloo ñoom ñoo def loolu mais toujours damay gis bu ñu nekkee ci hémicycle bi su su su su su opposition bi jëlee parole ñuy génn di dem wala ñuy saboote wala ñuy yuuxoo mel ni ay xale yu nekk réclamation yooyu dafa metti askan wi nañ respecté askan wi tey am na ca ñoo xamante ni bi nii leer na leen na la ñuy am tey ba defe ne ba tax ñu jàpp ne dañoo yor pouvoir bu ñuy tiitaroo askan wi moo leen ko jox kon tey nii ñu nekkee ensemble du ñu ay référence ñaaw na trop ku ci amati réglement de compte boo wara a demal ba sa kër wala ka nga séqal fa nga ko séqal moom nga régler ko fa ensemble dañ faa dañ koo samp ngir di xam lan la askan wi yittewoo ñuy dajale alali réew mi di ko fa sotti pour ñu natt ko kenn ku ne lan ca soxla nga am ko fa may wax président Macky Sall mu gestu waa Touba gestu waa ilaa Touba naam baax na rafetlu nañ ko mais doomu Touba yi sonn nañ suñu doom yi amuñu fu ñu jàngee bu ñu xëyee suba ba war a dem Mbàkke boo taxawee ci jumaa ji sa yaram day daw taxaw naa fa lu ma trois heures de temps sama doom ak ay moroomam taxaw fa bëgg bis buñ dugg pour dem jàngi ba 9 heures amuñu bis buñ dugg pour dem jàngi metti na ci Touba doomu Touba yi hôpital bii muy tabax fii ci yoon wi lu faratawu la ndax la santé avant tout mais nag bëgg nañ tamit. foofu hôpital bi nekk ñu dimbali ñu defal ñu fa école publique foofu duñ ko fa bañ yaakaar naa ndax su ma juumut foofu bokkul ci Touba diggante Misarala ak Daaru Karim la ma ñu defaral ñu fa université defal ñu fa primaire boo xam ne suñu doom yi dinañ fa mën a jànge liñ naan nit ki loo doonatub dongaam daa doon sëriñam avant tout jigéen laa te responsable laa yor ay responsabilité yu bari xam li sama morom yi. xam ñun jigéen ñi li ñuy jànkoonteel ci lu metti xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy dugalee budget ci Touba te jigéen ñi sonn gisuñu ci seen bopp loolu lu ma marqué la suñuy wax ministre de la femme ñun gisuñu suñu bopp ñun jigéenu banlieue Touba laa tudde jigéen ñi nga xam ne ñooy femme foyer yi sonn di ñafe te gisuñu kenn seen ginnaaw ministre de la femme mooy sama ki nga xam ne man sama ñaxtu ci moom laa koy jëmale personnel jigéenu Touba gisuñu seen bopp ci ministère am ndax soo dee dimbali nit dem fa nga xam ne fa lañ lay séene ci média yi nga seet ñoo xam ne la nga leen di dimbalee soxlawuñu ci dara bu ñëwee boo leen ko joxee ci seen bopp lañ koy yemale ndimbali du mën a sori waaye sëñ Mbàkke man kontaan naa bi ma àndeek Cheikh Abdou nga ñëw tànn ma pour ma témoigner ko xam naa lu bari lu ma war a wax ci moom nit ku responsable la nit ku jub la nit ku am fayda la nit ku fonk ay soxnaam lañ ma di leen sant bu baax di leen gërëm